coalition gox yu bees lu ko tax juddu moo di ñun ndaw ñi ku si mel ni Jomaay fee sa Jurbel ku si mel ni Ibrahima Ndiaye sa Canaba ku si mel ni Ibrahima Ndiaye bu Kër Soose ku si mel ni Pape Mamadou sa Bambey ku si nekk si ñun ak ñeneen tàmbali nañ liggéey depuis ay at créer seen mouvement di xeex gëm ni politique si gox goxaan yi lañ koy defee waaye bu ñu nekkee si loolu ku nekk di liggéey ñu ne ñun kat. nañu boole suñu doole ndaxte suñu gis-gis yi nduróo na te mun nañu gën a amal njëriñ Sénégal suñu boole suñuy doole donc ñu boole suñuy doole taxawal lu ñuy wax plateforme jeune maire dans un premier temps après ñu yaatal ko boole si ay parti politique boole si ay mouvement au niveau national parti politique yi ku si mel ni maître Ablaye Tine bu USL ku si mel ni euh, Doudou Sidibé professeur des universités à Paris bu RPD def ko ku si mel ni alliance des bâtisseurs de Meley Euh, Seck fële sa Thiès donc ñun ñëpp aussi ñu yaatal ko pour ñu ne ah nekkul ay mbiru jeune kese waaye nag objectif yi bu si ëpp doole wala bu si ëpp solo wala suñu objectif principal moo di fexe ba ndaw ñi nekk candidat mën a gagner élection yi gérer doxal si dëkk bi ndaxte dëkk bi kat démocratie la ñu wax te ndaw ñi ñoo fi ëpp donc ndaw ñi wax nañu mën a bokk si dëkk bi nu muy doxee di wax ndaw bi ñu ngi leen di lancer appel que ñëpp ñu ngi jóg dinaa ndaw ñi bindu ju leen primo votant yi bindu ju leen waaye ñu koy wax yëpp nañu jàpp ne ndaw ñi duñu am si voté kese dañuy bokk donc ku am yéene voté loo ndaw yi te bañ leen dugal ci liste yi bañ leen boole ñu nekk candidat ndax xam na ndaw ñi am na foo xamante ne suñ fa demee nañ fa gis seen place nañ fa gis euh, loo xamante ne moo leen di may ñu bokk si dëkk bi nu muy doxee waaw problème caution bi dañuy jàpp ne rek problème caution bi euh, inscription si liste bu ñu limité ba le 8 septembre euh, ndaw ñu bañ ñu voté suñu amee extrait de naissance loolu yoon yëpp dañu jàpp ne ay pexe la ngir xañ jeunesse su dëkk bi ñu bokk ci élection yi waaye loolu du tax ba duñ ci bokk ndaxte loolu tamit mooy tax xam nga nit moom soo ko bëggee euh, ndëgg sëxal da nga koy jox xel yu bees jox ko xalaat yu bees donc loolu moo tax yokk xalaat yi yokk xel yi ba élection yi daal jàpp leen li ñu lancé fii mën ngeen ko dugal ci annales politique sénégalaise ndaxte changement radical lay nekk si nu ñuy defee politique si gox-goxaat yi ak acteurs yuy participer que mu nekk ndaw ñi que mu nekk acteurs yoo xamante ne mosuñu politique wala seen gis-gis si politique yeesal la ñu bëgg. alors tey jii gox yu xamante ne a dugg mën xam tey ñaata mouvement moom waaw mouvement yi mun nañ ne ñaar fukki mouvement la ñu mën a confirmer mouvement yi. Euh, mën na jege centaine waaye ñëpp ñoo xamante ne dañu nekkoon ci liggéey bi euh, bëgg ci bokk bëri nañ waaye ñun dañuy bëgg lu précis ñu bokk tey ci lancement bi mooy ñooñu ñoo confirmé waaye ñeneen ñi kat ñu ngi ànd ak ñun te bëgg nañ ñu remplier conditions yi ñëw bokk ci liggéey bi bu ko defee ñu yaatal ndaxte suñu yéene moo di fépp fu commune am ci Sénégal ñu am fa candidat am fa candidat bu sérieux candidat boo xam lu ñuy boole moo di mën-mën bi di compétence yi moo di njub gi di intégrité moo di engagement bi mooy joxe lépp loo am ngir sa gox changé. la coalition gox yu bees a été initiée par un groupe de jeunes engagés pour le Sénégal. L'initiative a démarré par la plateforme point jeunesmaires.org et l'initiative a été élargie à d'autres acteurs qui ne sont pas forcément jeunes. L'objectif de la plateforme est de favoriser la candidature et la victoire de candidats jeunes et de nouveaux acteurs pour le renouvellement de la vie politique sénégalaise. Comment nous allons faire cela? Nous allons agir principalement sur trois aspects. sur les aspects réglementaires et juridiques, sur les aspects financiers et sur la co-construction d'un programme, d'une vision pour un Sénégal nouveau. Voilà, ah. euh, je pense que quand on pose cette question, c'est qu'on se dit Peut-être les jeunes n'ont pas de moyens dans ce pays. Nous pensons que tout ce qui est mis en place dans ces élections, c'est pour écarter la frange la plus importante de la population sénégalaise, que ce soit à travers les inscriptions, que ce soit à travers la caution. Mais je puis vous dire que notre coalition n'aura pas de soucis en cela parce que nous avons des candidats jeunes mais déjà responsables déjà investi pleinement dans leur localité. Et ce sont ces candidats qui vont prendre eux-mêmes la caution. Chacun va donner sa participation. Et nous lançons un message à l'ensemble des acteurs politiques et aux jeunes de ce pays que nous voyons que tout le monde fait des efforts pour pousser les primo-votants à les s'inscrire, pour pousser les jeunes à prendre en main ces élections, mais nous leur disons, ne demandez pas aux jeunes que de voter, mais permettez aux jeunes de prendre des postes de responsabilité, d'être candidats. Et l'un des objectifs principaux de notre coalition est de favoriser cela. Euh, la coalition a jours. Est-ce qu'on la coalition compte une vingtaine de mouvements. De candidats, on ne peut pas le dire parce que des personnes ont exprimé leur volonté d'être candidats sans pour autant le confirmer à la date de ce lancement. Ceux qui sont confirmés, ce sont, et on le dit de façon transparente, ceux qui ont participé financièrement à l'organisation de cette journée. Parce que nous ne sommes pas une coalition où une personne va prendre en charge tout, comme on a l'habitude de le voir dans les partis politiques. Nous sommes solidaires dans chaque action que nous faisons et dans chaque action que nous faisons, tout le monde participe. Ceux qui veulent se joindre à nous sans l'intention d'y participer, je pense qu'ils auront du mal à cheminer avec nous, car c'est notre façon de voir la politique, car quand on dit Gor Ubes, c'est une nouvelle façon de faire dans la démarche et même dans la conquête aussi nous allons changer la façon de faire la politique dans ce pays.